Thank <laughs> you. toujours dans votre acte du jour du 26 juin 2024 fa son excellence le président de la république Bassirou Diomaye Faye ginnaaw bu mu visité démb li nga plateforme Sangomar bi nga le premier baril barilu pétrole yi nga xamante ni tey jii leen produire fii ci Sénégal momidi le président de la république du Sénégal demoon na foofu amal fa benn visite muy démb ci plateforme Sangomar ginnaaw li nga xamante ni mooy barilu pétrole yi ñi koy produire mu saluer li nga xamante ni mooy abnégation ak mérite bi nga xamante képp koo nga yaakaar jëmale ko daal ci présence su ressource bi nga xamante ni dafa nekk ci benn fond wu océan ba noppi daal di ko jaarale ci benn promotion du bassin sédimentaire bi nga xamante ni bu nekk ci Sénégal moom président de la République expliqué na également li nga xamante ni mooy fiertéem ginnaaw bi nga xamante ni dafa gis œuvre bu brillant bi nga xamante ay jeunes sénégalais ñoo ko déployé jëmale ko daal ci seen xam-xam seen savoir faire nekk ci xolu impressionnante bi plateforme ginnaaw loolu daal mi ngi delloowaat engagement am jëmale ko daal ci gouvernement bi ak lii di gestion bu transparente équitable jëmale ko daal ci suñu ay ressources naturelles ba noppi bépp sénégalais gis ci boppam ginnaaw muy premier baril pétrole yi nga xamante ne wàcce na fii ci Sénégal ginnaaw biñ ko découvrir en 2014 boobu ba tey gisooguñu benn toq pétrole wàcce fi yàlla bi dara teewul nag bi ngi soog a wàccee premier baril pétrole bi ci weer bii ñuy dugg muy mois de juillet moom mii di président de la République Bassirou jomay fay amal na fa visite ba noppi daal di réitérer engagement am ak fiertem dimbale ko daal ci ay jeunes sénégalais yoo xamante ne seen expérience ak seen expertise fekk na leen foo ñu koy liggéey bëgg na nag ñu amal ko daal ben gestion bo xamante bu transparente Le képp kuy sénégalais xam sa pétrole fu mu dugg ba noppi dal di invité gouvernement bi ci gestion bu équitable jëmale ko suñu ay ressources naturelles <laughs>